jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey suivre Gaston Production mbokk yi mbégte la nag tey ñu teew fii kër alaaji la Diop yaakaar naa ne mu doon tudd doomam tuddee ko yenente bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis suba ba tey nag ñu ngi fi gis nañ fi monde de la lutte yaakaar naa ne Modou xarañ loolee roi des arènes kilifa gi rek bu ñëwee ñëwaale na ñëpp waaye comme si promoteur yi gis nañ fi Abdoulaye Ndiaye jamaïcain boo limee dangay ngay ci suñu confrère yi Lamine Seck Babacar Buur Géwél boo limee da nga jum tey man naa ne képp koo na man rek gis nga ko fii ci bis bi Massila dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk réew mi ñu jublu ci liggéey bi. maa ngi lay bu baax a baax di la nuyu di la jox sa wàcc waaye di la ne ni nga ko waxee noonu la am nañ mbégte daal am nañ mbégte lool parce que yéen ñëpp seen yitte ngeen bàyyi ñëw fii saa baa waroon naa ñëw mais dafa am dese xam nga dee nag moom kul nafsin saay xatul mawt te la man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika sul jalaali wal ikraam kon ginaaw loolu suñu borom da ko tënk heure bu ñu dabee rek dañ koy nangu te doyloo ko yàlla. ok tey nga doon tudd sa doom tey monde de la lutte bi yëpp ñëw teew fi ana ban yëg-yëg nga waa sant yàlla xam nga tax sant yàlla mooy nii ay nit kenn mën leen a luye te tey muru anta temps dafa seer. yaa ngi war na dem signature ba yaa ngi war na dem ay yite làmb am na tey yaa ngi ko bàyyi toog kon am na foo ñu teg dëgg la wala du dëgg nit nit ñi nañuy rafetal parce que booy rafetal boo amee bis da ciy feeñ man damaa ragal a def lu ñaaw ni nga koy waxee bilaay man dama ragal a wax lu ñaaw wala dama ko ragal a def ndax day am loo nga xamante ne alxuraan dënd bu mu nekk rek da ngay jéggale di jéggale di wax lu rafet di dox lu rafet loolu rek yàlla seede na ko. macha allah tey jii yaakaar naa ne comme niñ koy waxee chaque jour sa diggante ak Modou kenn dootu ko naatable tey yaakaar naa ne Modou moom mooy ki ëpp soxla ci réew mi par rapport ak victoire bi mu jógee yaakaar naa ne tey bu ko kilifa yëpp soxla woon ba ci Macky Sall sax tey mu xañ taawam ñooñu ñëpp tey ñëwal si la fii tey yëg-yëg bi lan la. no Modou ay mag ak rak lañ. suma rak la te ku déplacé wu ci sa bis say mbokk daje mu ñëw fa. mbooleem lu ñu fi lekk lu ñu fi naan ak nag wiñ fi rey lépp ci poosam la jóge kon dañ koy sant yàlla parce que nag dañoo ànd ak moom ci fidélité kon dañuy sant yàlla julli ci yonent bi. jot woon nga ne dina ñëw. laa ilaaha illallaah mu du dimanche euh, bi mu bëree ba noppi. altine la ba alarba. ba gisante nañ yoof lu yàgg ñu waxtaan ko. non dañuy waxtaan lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mu amul lu muy jël xam nga dama waxal ni yëgu woon combat bi loolu problème communication la wan parce que ñaankat yi bëre wuñu ak Modou kese dañ doon bëre ak man ak saa ba moo taxan ma xaw a làq sama bopp fan si nag ñu bëri waa moo tax ñu xaw a tiit mais su ma la waxee ne la Modou ànd yàlla xam na ne làmb jooju ñetti fan lañ ko lijjanti. ñetti fan. billaahi wallaahi tallaahi. ak Boy Niang ni mu toll. non làmb tegtal la rek. maa ngi koy nuyu au passage. Burhan ñëw na. Zil ñëw na. kon mu ànd àdduna lu lu lu fi lu fi jar lu ñaaw. nañ waxante dëgg. xoolal li jóge Pikine ñëw. te défaite bi matagul yàlla seede na ko kon ñun ñun sport lañ gëm. gëmuñu wax lu ñaaw gëmuñu def ko moo tax xale yi buñ leen dëppee micro nañ def attention ñi ni wax lu ñaaw ñu leen koy def ay daraja lañ yor ay kilifa lañ lu ñaaw baaxul. te leen neexee duñ fanaan këram ki wax ci yow. mais ku ci nekk li nga war a def soo ko defee xam nga ko mu doon soo waxee ci man dara balaa 24 heures bu ma la bëggee denc denc la. parce que na ci loo nga xam ne daanaka jarul jarul détail daal yàlla seede na ko. mais seen combat bi ni mu tolloon ngeen ne ci ñetti fan ngeen ko lijjanti sëñ bi lan ngeen yor lu gaay yor secret bi lan la. façon bennoo doon benn kese maa ngi nuyu saa Touba waran na fee teew woo na ma téléphone maa ko njëkk a man ko yow fan nga nekk sama rak la dama am ci moom sañ-sañ mu nekk ci dëj bi ma nee dëj damaa noppi. sëñ Cissé ñëw na sëñ Cissé taw feex ñëw na Mor ñëw na ku des sant yàlla rek. ok am na solo mais eh, combat bi ngeen jëloon parce que tamit da ngeen a sonal waa Pikine de communication bi avant làmb ji dégg naa nga naan Mamadou Ngom doomu. <laughs> maa ngi koy jégalu ndax gars yi ma doon wax lu ne non turam la rek ma xam ko di ko wax Mboy Niang sama rakk la dañoo bokk ay xarit dañu bokk ay xarit depuis Amérique yàlla seede na ko ak yonent bi moo tax bu buñ toogee ci ginnaaw di wax damay xool ma ni ñii est-ce que wéet nañoo ak ñaa ñun ba ñaa luñ ko yéene lu dul jàmm maa ngi nuyu au passage Kandji ak Tafa Kandji loolu lañ koy yéene yàlla xam na ko kon dajee am loo nga xamante ni vraiment Modou Anta daal micro dafa jooy ñu ni ko foo jooy mu ne dañ maa jox ku wër te wax ci man ñu jox ma ko am na ñoo nga xam ne dañu leen di fay ngir ñu noppi am na ñoo nga xam ne dañu leen di fay ngir ñu bañ yor sit ndax bu gën a waxee jawaab nga bàyyi ko dugal ko daggoo ko bu tàbbee ci guta yaa ko ci tàbbal. ok am na solo mais sëñ bi communication boobu nga def mu mel ne tey laal na waa kër booy Niang le fait que nga xam turam xam santam xam turu waajuram nekk sëriñum ñaankat bu ñëpp bàyyi xel aussi tamit nga koy wax mu mel ne tamit. bataille psychologique boobu am na fu mu tolloon ci ñoom. non boobu xam nga nag làmb dafa xaw nekk problème de communication ku ci nekk da ngay xool ni ngay communiquer ak fi ngay communiquer ak moom pour foo ko mën a jaaree loola rek suñu rakk la bëri nañ yàlla may nañu ndam yàlla moo ñu may ndam daa dañoo rooti wan mu rooti ñu rooti suñ paan am ndox moom paanam amul ndox su amaatee combat kudul muuduloo yàlla na ko yàlla may ndam ak ku dëkkul ok le jouru làmb ji bi ne suba la làmb ji di lundi bi nga yeewoo lan nga njëkk a gis ak lan nga njëkk a euh, wax ak lan nga njëkk a jàpp. ci bi ñuy dem di bëre ji. damaa njëkk a xëy dem génn samay sarax. bi ma fa jógee départ dem géej. ñëw kër Mooduloo ak taktal yooyu ma waral di def. géej gi géej gi lu waral géej gi yeewu fajar suuru combat dem géej. non. ci am loo nga xamante ni géej moo koy sottil biddiwu ki ñu ñaanal ci ndox la nekk tabiaam ci ndox la nekk. lan géej gi. waaw. ba nga jógee géej. bi ma jógee géej ma ñëw Kër Muudu bi ma jógee Kër Muudu dem stade war a délosé lañ fa def lépp mm, dégg naa fa lu ne ñu ko doon wax jéggal naa leen ndax njuumte la ay Muudu Anta am na ñoo xam ne boo leen joxoñee wala nga saaga leen même bu lañee baal naa la seen bu du leen baal. le fait que foofu nag mu mel ni Kandji production aussi tamit ak Père Bourkhane def nañ fa taxawaayu kilifa. mais Bourkhane ñëw na fi tey. waaw bi may safa Kandji bi may safar moo ma jox nag nagu bi ma safaree. kon lu des xale yi mooy yow ñoom dañ fayiku wuñ ci lekk ñu ci cent franc te boobu bi ñuy bi ñuy bi ñuy wax yu ñaaw yooyu wala ñu ni ko def ñun ak Kandji benn lan ñun ak tafaa Kandji benn lan. teewul bu ñu amee combat dañuy ñaanal ki ñu faral yàlla may ko ndam. mais nag dégg naa ne da ngeen a xabtal Boy Niang de. xabtal. parce que Boy Niang daawul bëree nii. est-ce que du Sa. daa naxante. Sa Touba moo yor galaaj xabtal nag. ah Sa Touba man dégg naa yow it bataille psychologique bu garaaw nga. non Sa Touba moom day xabtalaate. daa yu tàng la yor ak sëñ Cissé. gisoo sëñ Cissé yat wi mu yoroon. yaa ngi ciy sa bopp de man de yow laa laaj sëñ <laughs> <laughs> man damaa damaa damaa ñëw toog noonu. waaw mais kenn ku ne xam na ne secret làmb ci alxuraan la nekk te dañuy gis say émission nga ciy développé lu am solo parce que man mi jàng naa boo waxee rek dinaa xam maanaam secret boobu tey nan ngeen ci liggéeyee ba tey lamb ji mën na métti te méttiwut parce que ñëpp xalaatan nañ ne ba ci même mbër mi waxoon na ne booy ñaa moo gën a métti ama loolu waxin la rek. non non moo la gën a kii loolu yàlla seede na ne ak yonent bi loolu problème de communication la rek. Boy Niang naqari naa bëreel. non Boy Niang adversaire la wan rek comme adversaire yi. Ah, mais bu dansé bu leen boo xamante ne gars yi tiitalan na leen ci trop de. Moodu Anta jàngal xuraan. tabiya moo nekk li gën a baax boo ko xamee moom la ñuy wax ilmu nujum méttiwul. non boo ko xamee dafay gaaw yàlla seede na ko ak yonent ma si la waa bitim réew fiñ la fonke ak niñ la teg loolu nan nga def liggéey ba ba ba convaincre leen. ku ma jox sa xaalis ma ñaanal lu may wax nit mu doon lu may xam lu may wax nit muy doon lu may man boo ma joxee sa xaalis sa xaw a yàkkamti wala ngay am loo indi man la li nga ma joxoon mi ngi nii ndax ab der lu koy yàq li koy defar moo ko gën te xaalis dafa yàq ab der. ndax mu Anta da lay jox cent franc teg la pression boo ci àndul ak xel rek mën na laa andil waaw ñu ngi ci ŋaañi sëriñ yu bari sëriñ sax mën nañoo bañ mën mën nañoo jub mais dañoo jàpp ni dañuy dem ba jël sëriñ si teg leen place yàlla sëriñ si yàlla la ñuy dagaan nit ki boo ñëwee ci moom am ci moom yaakaar xam-xam bi nga am ci moom moo tax ngay ñëw ci moom bu la ñaanalee da ngay patienté wu mais am na xam duñu patienté wu ok li saxaar noo ci def ak ñoom non loolu dama ko mën nag wax dëgg yàlla ndax man alxu lépp alxuraan la. dégg naa ko de. wara bul kaa bari dama ko man alxuraan moom man alxuraan laa di saxaar man mu dama wóolu alxuraan dama ko gëm te wóolu ko. mooy baasu lépp dama ko man wóolu ko gëm ko yàlla seede na ko. Mhm. nan ngay liggéeye ak ñoom ndax ñoom tamit neex nañoo liggéeyal. man de ñi ma ci yàlla booleel aw ma cee kenn xaar ma yàlla. ndax li ma lay wax lu leer lay doon li may wax ak jëflanteeg yow lu leer lay doon ñaankat nag li koy dimbali mooy ñu jox ñu jox la xaalis nga lànk joxoo nit ki ñaan fom mu taxaw ni danga maa ameel waaw loolu moom ku koy bañ dangay ngay sonn buñ la joxee dee lool seen ñaan. ñi nekk ci réew mi. noo liibur gis nga li fi xew tey bari na ñoo fi gis ñoo nga xam dama leen di ñaanal loolu rek. am na solo dama la dégg nga ne ku kudul Modou doo ko ñaanal sëñ bi nag moo Modou kese moomu la léegi luy problème bi ba nga wax kàddu gu réy googu. man sima la benn yoon laay tooy te Seydi Hadji Malick dafa waxan gor moomul dal dalli ku ci nekk nag ku la neex man ngaa jël say engagement mbër mu la neex nga dem ànd ak moom dem di ko ñaanali mais ci làmb man Modou kese laa ci ñaanal ndax Modou Anta bu ma la ñaanalee ñaanal kii taxaw. bu ngeen demee ba war a bëree yéen ñaar lotis mën naa am ba loolu amee ñu ñakaa jaay sama nam ndax mbër daja bari ñoo xam ànduñoo xel nañ ma baal tuuti te seen i supporters ànduñoo seen sago da nga noo jaay wala da noo da ngaa jaay suñu ndam loolaay bañ te kilifa day moytoo juum looloo tax ma engagé wu muudu rek su bàyyee ma bàyyi. fi ma jeexalee yow parce que émission bu ma def tamit dinañ ma sonal di ma woo jox ma numéro kii nga doon jël fi may jeexalee yow. gars yi dañ ne combat commerce Modou Lo Siteu combat commerce Modou Lo Balla Gaye 2 ndax El Hadj Massila gis na loolu moom. non Siteu dañoo am ay lieson man personnellement man mi ñaanal muduloo man bëgguma Siteu ak Modou Lo bëre xam nga ndax bëgguma ko man am na benn rakku Siteu magu Siteu boo nga xamante ni su ma juumul gis naa ko kër muduloo xawma xaw ma la xaw ma est-ce du Kader. Kader la. gis naa ko kër Modou Lo munoo man magu Siteu laa kon combat boobu nan lay amee. moo takk moo takk rakk wala magu. waaw léegi la foofu nan la fa làmb di amee loolu c'est impossible mën na nekk. du business sëñ bi. non non non non Siteu du business am jomam moo ko may ak fula. maa ngi koy nuyu au passage bañan ko sonal moo tax waxuma ko te et suma papa bi ma jur dafa këram ak kër Siteu benn la bëgguma làmb jooju am. bu dee Balla Gaye non Modou nag day xool ñi mu bëreegul mu bëre ak ñoom ci kaw bu ñu toogee ci biirum nit comme li ma wax ak moom keroog ba xoolaat li ñuy xoolaat noppi. ba xoolaat. xool ba noppi. luus na loolu la dem la de. Boy Niang maa ko woo ni ko Modou ba muy man ko combat Boy Niang Balla Gaye Boy Niang da koy daan te bu ko daanee yéen ñaar da ngeen di bëree mu ne ma looy wax ni ma ne ko li ma la wax nii jàppal di ngeen bëree woo Ibulaay ni ko. di ngeen bëree muudu waaye eh, Boy Niang dina bëree muudu waaye nii ak nii la ñuy bëree mu ne ma loo ma mos wax gëm naa ko waaye lii moom damay bàyyi ba gis ko ma ne ko jàppal moo tax combat bi mu taxawee Ibulaay daa dafa daw. man yow da nga waajoon Boy Niang. man damay gis yàlla seede na ko ak yonent bi. fi may jeexalee yow Modou Lo Tapha dégg naa nag ñu ne da ngeen koo ragal loolu laa dégg. ragal moom génnew ñu ci masil la jàkkaarloo masil la naa ko da a ragal Tapha. est-ce que Moodu am na ku muy ragal ci kaw suuf maa ngi nuyu Tapha au passage di ko jox wàccu waayam suñ borom yàlla mi dogal dogal na ni déggante nañ démb waroon naa ñëw ci xew bi ndax wuli paas na ma ko téléphone xam naa dafa nekk ci ay xat-xat rek yu jamono yi kom jàpp ak yu mel noonu. waaye pour ma wax la Modou gis nga loxo bi li ci nekk lu war a faji la ku war a faju ji nag mënoo jël avance wala ñu lay wax ba làmb jeexa léegi nit ñi ñooy wax rek ak sa classe gi nga xam ni information ak i wax la ñuy wut voilà mais Modou kenn sañagul a woo ménager am sax di ko wax dara. ok bi ma bàyyi la nga baax nit ñi aussi tamit sa numéro ñi la bëgg a jot. ak lan ngay tàggoo mbokk sénégalais yi. Modou Anta maa ngi lay delloo ziar baax di nuyu adduna di nuyu monde entier di ñaanal Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla yëkkati ndax ñun bu ñu bëggee làmb gis ko rek ci jëmmam moo tax te kuy tëgg làmb rek da ko war a jox àllarba kon dañ koy sant di ko gërëm. sama numéro nag man la ma doon wax laay waxaa rek benn numéro laa yor aw ma secrétaire aw ma bëkk néeg du lu ma koy dee nekk yombatu ci sëriñ si de. seddana ni moom laa yor ba keroog may dee. billahi wal kitaabi 77 269 90 39 jeex na. numéro bi du sens. mukk du sensé eh. moom rek laa yor. nga moo waral lool jub googu. non boo jubee da ngay indépendance soo jubul dangay ngay sa bopp. biir bàmmeel dafa xat te la fay wétali la lay wétali biir bàmmeel. xam nga lépp di nga jëlib sëriñ sax yow muuru ànd nga xam ni kii mën nga koo jàngal yow. du jeex xam nga moo ci nekk. bi ma yeewee la bàyyi la nga tàggoo mbokk sénégalais yi am nañ mbégte nag jàkkaarloo yow le fait que nga ñëw tey sa temps yaakaar naa ne danga ñu ci ñamal parce que tey moom xat nga torop amoo jot. Mhm. waaw Modou Anta maa ngi lay delloo siyaar bu baax di wax ni maa ngi sant ñëpp gis nga buur géwél mi ak sama géwél bi bi ñu xëyee ba tey suba huit ba léegi ñi ngi fi ñoom mbaw ñoom ñëpp ñi ngi fi di la sant yow di la gërëm di wax ni man ak yow la woon ba Lutte TV kon rafet na ngay def làmbu diaspora bi yal na la yàlla jox sa yëfi bopp gëmal li nga gëm rek lu fi nit di am yàlla moo koy joxe lu fi nit di am jub moo koy may lu fi nit di am ragal yàlla moo koy may ak ngëm-ngëm te bañ a tàllal loxo parce que ab julit du tàllal loxo loolu rek laa lay dénk macha allah mi ngi noonu alaaji Masila Diop laa dalaloon tey amaan mbégte ak contentement bu baax ci moom mbokki di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production xaleel jërëjëf